أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ndorkeel ci weeru gàmm gu tedd gi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñ ñu fas yéene woon a ñëw nag ci ay bind yoo xam ne day aju ci dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bind yooyu yëpp dañ koo fas yéene jukkee ci téereb Sëriñ Tuubaa bu tedd bii nga xam ne téereb julli la waaye téereb tagg la waaye téereb di nettali jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak xew-xew yi nga xam ne xewoon na ci dundam muy jasbul xuluub li allaamil xuyuub di téere bu xam ne nii bu mat di jàng la bu mat a xam la ñu fas yéene nag di ko jël par ay bind yu wuute comme tey jii nga xam ne dañoo bëgg a jël bind bi nga xam ne day aju ci kiimtaan yi feeñoon ci bi muy feeñ jamono moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te fas yéene koo sukkandiku ci téere bi suñ ñëwaatee jëlaat bind boo xam ne nii day aju ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye lépp it dañ koy jële bind yooyu ci téere bi waaye it amaat bind yoo xam ne ci mojisaat yi nga xam ne kiimtaan yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñal na ko wala lenn ci kiimtaan yi nga xam ne feeñal na ko naka noonu xaswatu badrin al mubaraka naka noonu loolu noonu ñuy wax asamailul muhammadiya melaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i jikkoom yooyu yëpp ay xeeti bind la yoo xam ne nii dañ koo fas yéenee sukkandikoo jëlee ko ci téere bi lu ci nekk buñ koy wax ñu tudd ko fa muy tollool ci téere bi di ñaan sunu borom defal ñu ci tawféex ci nangu ko ci barkeb sëriñ bi mbokk yi comme niñ ko waxee bind bu njëkk bii ñu fas yéenee waxtaane day aju ci ganek àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ci feeñ ci xeeti kiimtaan yoo xam ne nii feeñ na ca Makka ànd ak ganek jamonoom gi. te lépp it ñu di ko sukkandiku ci téere bu tedd bii nga xam ne mooy jësbul xuluub li allaamil xuyub ca Mawlaana Cheikh Ahmadul Xadim def ko yàlla nañu ko yàlla fayal yonent bi alayhi salaatu wa salaam lu jiitu muy ñëw jamono ba sun borom dajalee ruuya rek la feeñal ay kiimtaan ca dajale googu leen yàlla dajale woon ndax bam laajee ne ndax duma seen borom. ruug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo njëkk a tontu comme ni ko borom bi di not nettalee ci suratul ahraaf alastu bi rabbikum loolu it sëriñ bi nettali na ko ci téere bi di wax ne yow yàlla borom bi yàlla na nga dolli xéewal ak i muslaay ci yonent bi nga xam ne moom moo tonte woon na axakay ba nga dajalee ruuya laajte ak ruwam njëkk a tontu yeneen ruuya soog caa topp salli wa salliman ala man xat ajaaba bi balaa yow ma alastu awwala xabla sawi takallumi kon yaakaar naa ku mel noonu bañ dajalee ruuya nga xam ne aadama ak xawaa wàccaguñ la tàmbalee di wane ay kimtaan loolu day wane ne sun boroom mi ngi waajal koo xam ne nii kenn melut ne moom te ku mel ne moom du amaat te mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax boo demee ci téere bi da nga fekk lu tolloog juróom-ñetti abyaat yoo xam ne nii juróomi xew-xew yu yéeme yu doy waar yoo xam ne xewoon na ci dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi mi ngi ko fiy nettali fajarug altine jooje nga xam ne ci la yonent bi gane woon jamono di tolloog atum 570 jàpp 571 ci juddug yonente yàlla Isa alayhi salaam. dajanteeg xew-xew bu mag boobu yi ñuy woowe atum ñayya mooy ba abraha moom mu ñëwoon ak i ñayam ne woon daa bëggoon a mabbu kaaba ga ca yàlla alag ko ca picc yooyee nga xam ne moom la ko alage at moomu la ñuy dàkkantale juddug yonent bi ñu naan gane na jamono ca atum ñayya waaye ci bisub altine ci weeru gàmmu ci fukki fan ak ñaar ba mu tombeel fukki fan ak ñaar ya ca fajar googee tombeeg bisub altine ci la gane jamono ca màkkatal mukarrama ci weeru gàmm weer wi nga xam ne danañ faral di gis ci mbindum sëriñ bi lu baree baree bari mu di ko tudd danañ faral di gis ci mbindum sëriñ bi lu baree bari muy ñaan ci weeru gàmm waaye buy tagg sax day taggaale weer wi faaxa rabihul awwali suhuura bi ma bi mawlidil lasi bada mashhuura shahru rasulil shahru rasulillahi bahjatu suhuur wa ramadaanu shahru xetqin wa tuhuur loolu lépp ay xeeti tagg la yoo xam ne nii weeru gàmm googu nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane jamono moom lay waxal muy weer woowu boo ñëwee ci téere bi ci kéemtaan yooyu nga xam ne sëriñ bi tudd na ko tam ànd ak ganek àdduna ganek àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kéemtaan yooyu bokk na ci muy te ci ci bari wala yim tudd yëpp boo demee ci téere yi njëkk yi yu borom xam-xam yi nga xam ne dañuy nettali lu jëm ci wàllu taarix danañ ko nettali waaye danañ ko saxal yaxal ko bu baax a baax a baax ba mu am cosaan boo delloo ca téere boobu ñuy woowee al bidaayatu wa nihaaya borom xam-xam bu mag boobu mu fassir bu mag boobu di ibnu kasir def ko mboolem xew-xew yi nga xam ne sëriñ bi tudd na ko ci jës bu boo fa demee da nga ko fekk mu di ko nettaliwaat ak yeneen téere yu baree bari yoo xam ne nii borom xam-xam yi yaxal nañ ko bokk na ca kimtaan yooyu nga xam ne feeñoon na ci ganek àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy sawara soo xam ne nii dafa nekkoon ca force force nag buñ ko waxee mooy fi Iran nekk tey sawara soo xam ne wax nañ ne am na junniy at di tàkk di bërëx bërëxi vingt quatre heures sur vingt quatre sawara soosu du fay wax nañ ne boo ci sotti woon ndox sax day mel ne day gën a tàkkat ba nit ñooñu nga xam ne ñoo nekkoon ca gox boobu far di jaamu sawara soosu ba jàppe ko yàlla ñu leen daa tudde ay majuusi yun wax nañ ne fajaruk altine jooju nga xam ne ci la yonente yàlla bu tedd bi gën a jamono sawara soosu daa jékki-jékki fay ba mel ni musta tàkk loolu sëriñ bi mi ngi koy nettali ci jës bu naan xawat xawaari xa badat ani ruwaati sabatat ka misli naarin fi at maa miha i daqami nee na sawara soosu kat nga xam ne daa nekkoon ca furs bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ganee jamono sawara soosu daa daal di fay waaye bokk na ci kimtaan yi nga xam ne feeñ na ànd ak ganek àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëtum ndox boobu ñu daa woowee bu xayratu saawa moom mi nekkoon ca force di ndox mu sell mu neex moo xam ne daa jékki-jékkoon ball foofa ñu ko daa woowee aynu saawata ndox moomu nga xam ne wax nañ ci nett lii ne am na ñu naan matoon na vingt kilomètres ñaar fukki kilomètres yoo xam ne ni ndox ma matoon na ko yàlla xéewale woon leen ko ñu daa ci moy yàlla luñ daa def lu ñaaw ca ndox moomu lañ koy defee bi yonent bi kanee jamono ndox ma daa daal di ñiis ba mel ni fii ndox mosu fee am loolu it sëriñ bi mi ngi koy nettali ci téere bi naan wa ayni saawata lati qad asumat wa jallati lil fursi xabdal millati wa suyirat kalxadami nee na ay ayni saawata googu nga xam ne dañ ko daa màggal bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ganee jamono daa daal di ñiis ba mel ni musta am waaye bokk na ci kimtaan yi nga xam ne feeñ na ci ganek àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sayaatiin yi ak iblis ak waa këram yëpp lu jiitu juddug yonente yàlla Isa dañ daa dem ba yéeg ci juróom-ñaari asamaan yi dem ba ci alamul malakut di diglu lay xew foofu di ko jox njabarkat yi nga xam ne ñoo ne ci jamono ñu di ko wax bu ko defee nit ñi jàpp ne njabarkat yi dara lañ fekk duñ dara waaye li ñuy wax lépp saytaane moo leen koy jox wax nañ ne bi yonente yàlla Isa alayhi salaam ganee jamono dañ leen a dàq lu mat ñetti asamaan nga xam ne mënatuñoo yéeg ci juróom-ñaari yëpp waaye foofu lañ mën a yem bi yonent bi ganee jamono juróom-ñaari asamaan yëpp lañ leen dàq sànni leen ay jum ay biddiw ba nga xam ne mënatuñoo yéeg lépp rek li ko waral mooy ganek àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu boo demee ci suratu jinni da nga fekk bu baax a baax borom bi di ko fa nettaliwaat ci gën a yaatal naan wa wa anna kunna naqudu minha maqaida li sama nee na sayaatina yi daanañ dem ba yéeg di diglu waaye bi yonent bi ganee jamono rek dañu la sànni ay jum wakan qidaadi suhu bi tardan li ahli riya bi an samhi axbaari nabi wa rajaxu bi nadami turida fiha bi nujum ani samawaati rajim wa farraxa sirran yulim bi xisbihi saawakami yooyu yëpp ay xew-xew la yoo xam ne nii xewoon na ci ganek àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye it la ca gën a yéeme wala bokk na ci la ca gën a yéeme ci gan ak àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leer goo xam ne daa jékki-jékki jolli ci àdduna bi yépp fu ne ñuy gisug leer ay xeeti kaawteef ak i kiimaan di feeñ ci asamaan si di feeñ ci biddiw yi ba ñi nga xam ne dañ doon gëstu ci wàllum ilmul falak gis xeeti tegtal yooyu nga xam ne day tegtale ne am na lu feeñ ci jamono loo xam ne nii day tegtale ñëw yonente mujjug jamono nga xam ne ku feeñ ci jamono ci fajaruk tey jii rek yow la leer goo xam ne nii mboolem ñi nekkoon màkk ba li génn màkk ñi ngi ko doon gis am na saxaabi yi bu ñuy wax naan Osmaan ibnu Abil Haas nee na yaayam nettali na ko ne ko leer googu mi ngi ko doon fàttaliku bam jollee ci màkka ak li wër màkka ba nekk ña nekk ca waa yasrib ak dëkk yooyu yëpp di gis leer googu nga xam ne dafa jolli woon ci fajar googu nga xam ne dafa baaxoo woon a lëndëm loolu sëriñ bi mi ngi koy nettali naan sataha xiina wulida xayru nabiyin xat bada salla alayhi man hada fuaadahu bilxikami nuurun adimun xad yara bihi xusuura xaysara man kaana fi ummil xura makkata xayril xurumi waaye it bokk na ci kiimtaan yooyu nga xam ne feeñoon na ci ganek àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam paleb kisra boobu nga xam ne pale bu rëy la woon bu mag la woon nga xam ne wax nañ ne boo masaa jàkkaarloog pale ba day mel ne day laal asamaan si ndax tabax bi ni mu yànje woon ak ni mu rëye woon bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ganee jamono tabax ba da doon rëng-rëngi ba wax nañ ne lu mat fukki balcon ak ñeent fàq nañ ca damm ca daanu ci suuf am na sax lenn ci nettalikat yu naan fukki balcon yooyu ak ñeent li muy tegtale mooy fukki buur ak ñeent yi nga xam ne ñoo fa jaar ginnaaw bi te yépp boo ko doon xool ginnaaw fàq googu ba ca xilaaf ak Seydina Ousmane fukki buur la ak ñeent waaye daal lu am lu man di xew mooy pale ba fàq na yëngatu na ba fukki bàngaas yooyu ak ñeent daanu ca ca li ko waral lépp mooy ganek àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la sëriñ bi nettali naan iwaanu iwaanu kisran salaha fiiha wa qablu rufiha samkun lahu fartafaha nahwa samal mukarrimi hatta sarirun kasara li ajli hawlin ihtara min nuuri afdalil wara rabbi alayhi sallim mu naan leer googu jolli tax na ba paleb kisra boobu di rëng-rëngi ba fukki bàngaas yooyu nga xam ne ca kaw la nekkoon daanu ci suuf ba lal bi nga xam ne moom la buur boobu di kisra toogoon sax lal ba daa mujj di rëng-rëngi di rëng-rëngi di jaayu ba damm ngir leeroo googu nga xam ne dafa jolli ca Makka ca gën gi mbindee faral ko leer googu moo ko waral ba xew-xew yooyu daal di am kon lii boo ko dee xool fukk juróom-ñetti ab yaat lay tollool yoo xam ne tudd na ci juróomi kéemtaan yoo xam ne yépp ci ganek àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la feeñoon waaye li ci am solo mooy sëriñ bi ni mu koy tuddee da ciy boole ak di ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di ko tagg loolu lépp day wane ak cofeelam ak mbëggeelam ak jaayante googu nga xam ne jaayante woon na ko ci xalimaam ne lu dul tagg ak julli du ko def ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii moo tax fu ñuy gisee rek fu muy nettalee mu di ko wane ci anam bi nga xam ne baaxoowuñ koo gis sax ñeneen ñi di ko def loolu lu am solo la loo xam ne lu mat a xam la kon mbokk yi lii mooy bindu bu njëkk bi nga xam ne moom lañ doon leeral li aju ci ganek àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Makka ci atum 570 jàpp 571 ci bisub altine tolloog atum ñayya ci weeru gàmm ci fukki fan ak ñaar ñu ci ñëwoon ci lenn ci nettali yi nga xam ne sëriñ bi nettali na ko ci jës bu cam feeñoon ca màkkatal mukarrama ñoo ngi sant di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu